yow lii lépp yow la yaa ub say rak macha allah di sa doomu lay sa si yow rek tëral ko la. Merci. viens waaw wàccaay bi par ah, sant nan yàlla bu baax a baax a baax ànd nañ ak suñuy mbokk comprendre nga ànd ak suma frère comprendre nga mu teg ma ci yoon comprendre nga ànd ak suma frère boo ñaa mu teg ma ci yoon combat bi man ma dara moo ma jox oto def ci essence di ma dawalal yaa ngi dégg di ma yee 5 heures du matin ngoon di ma taalal di defal boppam essence ci oto bi te essence bi otom bi essence bi dafa seer sax kii mu def essange bu bari yóbbu ma dawalal ma teg ma lu metti indi ma comprendre nga ñun pare nañ waaw. non Pikine moo jur géejawaay rek Pikine moom musul neex la ci géejawaay moom musul neex la ci Pikine comprendre nga càppaacoli baa ngi nii dafa def lam fa war a def ba pare man moo war a ñëw dogal yi nga Pikine géejawaay moom comprendre nga waaw waaw waaw maaji maaji incha allah arbitre bu génnee sama dëgg li ma liggéey comprendre ak li ma gëm comprendre nga ak li ma war ak li may xaar incha allah man maa ko ñëw def waaw man maa ko ñëw def moom santu ma ko dara na taxaw rek waaw. maaji maaji maaji maaji diggante moom Mbacke Faye daa métti woon lool te ba ki demoon Ndiaye ba jógee écurie Waalo dégg nga lu mu wax nee booy bi du ko jaarale yoon. man ñu gën a metti maaji maaji laa daan yàlla xam na ko ñu gën a metti maaji maaji laa daan ñu gën a metti maaji maaji kan fi daan ah, baax na yàlla baax na Fula Fuuta dafa ne sa mi anda mi andi hey majj majj si ma sa Allah nangima a anday o fiyama ha maya barki waaw ah, noonu la demee comprendre waaw d'abord comprendre di woo waa komparan comprendre nga di geureum suma doomu nday ablay Talibé comprendre nga ak sama grand Badou gay ci suba lañ fi ba Thiès di sonal masalah, allah comprendre nga di ma top xoolal laaju mu ñu ma dërëm di def ci man comprendre nga maa ngi koy ziar bu baax ak soxna ablay Talibé ñu wax a wax suma démé Thiès namu dara ak soxna Badou gay ñu wax Assou Mbacké leen ziar bu baax di ziar wa Thiès sama wa koñ wa guy sombel wa mourid ga wa keur nyang, ñang ma nga leen ñu ñep ma nga leen wo sama nijaay ma nga ngi leen woo ci combat bi wa ersan wa mourid wa gambi wa touba fallu sen sama sama serigne sama xarit ñu len leen woo ci combat bi comprendre nga ta papi ñer nak comprendre nga dama leen assas sas bi cité bi dama leen sas sama premier grand combat li ma wa cité papi ñer moy cité bi mercredi ba kenn dess ci jank ndaw xalé mak dama bëgg ñoom ñëpp incha allah ñu génn cité bi dem stade incha allah loolu laa bëgg te loolu waa cité bi comprendre nga waa cité bi man xam naa ni dinañ ma defal loolu kon loolu sas la bu ma leen di jox rawati nag waa Thiès ni ngi ñëw incha allah. Hmm. waaw muy. muy lan waaw. waaw. Ah, daf ci jeez comprendre nga maa ngi ziar Amet maa ngi nuyu Amet Amet Amet góoru nday mari maa ngi koy ziar bu baax kooku saag bu may bëre yàlla xam na ni day jékki-jékki yi jox nday mari ni ko joxal maa sha Amet bu ndey mari maa koy ziar bu baax a baax a baax di ziar suma jigéen nday mari kuy sonn ci maa sha Allah di ziar sama maman mam mère Anna nga maa ngi koy bu baax a baax a baax comprendre maa ngi ziar sama waa kër kan kaj yi nee na ma nee na ma cinq bolok lay jënd tey la ma wax ni ma cinq bolog yëpp dina ko jënd tey mooy président écurie bi sitam la sitam la mooy président écurie non kañ mooy jënd bolog yëpp ah. mooy jënd bolog yëpp comprendre nga di nuyu sama waa kër bu baax a baax a baax di ziar seex yi seexu masala yi maa ngi leen di ziar bu baax a baax ay ñoom Aliou ñoom Baba Njila ñoom Moussa ñoom Assane comprendre nga ñoom Ndoo comprendre nga waa Pàq Séréer yi incha maa ngi jox ñëpp rendez-vous mercredi le 22 incha allah ñu dem estat jàpp maaji maaji tàppalaa ko pipi mbala max mbiw e Touba Darou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 575 50 25 le 33 824 57 43 ETDR accessible ne pour nous. suñu adresse magnifique ngi fii ci Pikine ci technopole bi arène nationale villa numéro 406 ETDR moi lay aar Samu sa bâtiment am durée de vie bu yàgg kon nag gars ETDR ndax Mofine.